ñu ngi euh, euh, di ñu ngi doon dalal tey jii euh, ñi nga xam ne ñoo jóge ci Banque africaine de développement ànd ak ñi yore programme bi ñu tuddee Promoville muy programme boo xam ne état wu Sénégal moom moo ko moo ko moo ko moo ko càmbar moo ko xalaat moo ko teg ñu ko ciy gërëm ngir ci dëkk yi ñu tànn pour def ko fa Thiès da ci bokk alors bañ ñu ko yëgalee ay weer ci ginnaaw ñun dañoo seet li nga xam moom lañ daan waxtaanee. ci audience publique yi nit ñi di ko jooytu ci yenn mbedd yi ñu boole ko tamit nag ak liggéeyu direction des services technique de la ville li boole ko ak li ñu dëkk ci dëkk bi ak li ñu fi xam ñu seet mbedd yi nga xamante ni jar na ñoo defaraat wala jar na ñoo defar tali yi nga xam ne masoon nañu am te baaxatul ñu defaraat leen tali yi nga xam ne mosul am te war am ñu defar leen mais mu am tali yoo xam ne aussi danañ fexe ba lépp loo xamante ni day jóge ci nit ñi te war a dem ñu defar ay euh, yoon yoo xamante ne dañ fa mën a jaare di dem te boole ko aussi ak yoon yi waroon a am lampe te amuñu làmp ñu jëm ko fa defar loolu la ñu nekkoon ànd ak ñoom ànd ak waa direction de services techniques ànd ak euh, vraiment adjoint au maire yi fi nekk euh, muy ñi nga xam ne ñu ngi commune est ak ñenn ñoo xamante ni vraiment ville bi yëpp la ñuy liggéeyal ñu ànd ak ñoom ngir xool yoon yooyu ñee bu ñu ñibbee ñoom mën a yeggale tënk bi nga xam moom la ñu war def ci programme bi pour que balaa at mee jeex incha allah rabbi liggéey bi mën a tàmbali amal njëriñ waa Thiès yëpp.